mbokk yi ñu sant leen gërëm leen ci seen àndaax ñun ci rajo Rewmi FM ñoom nañ koy defee rek dimanche bu jot ci émission gox bi tey nag ñu am ci yéene dalal si ki nga xam ni moom moo di Abdoul Aziz Diané nekk maire bu commune bu Jaxaay Parcelles Assainies euh, mu ngi ci diwaanu Kër Massar n'est-ce pas. ci département bu Kër Massar. ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm ci émission bi. jërëjëf Mbemba ñu ngi lay ziar bu wér. Mm-hmm. di ziar aussi sa sa technicien bi nekk suñu kanam mhm. di ko jaar bu wér a wér euh, di ziar aussi bépp auditeur et auditrice de la rajo Rewmi Rewmi Rewmi FM mhm. am na solo laata ñuy door li nga xam ni moom moo jëm ci émission bi bëggoon nañ xam kan mooy Abdoul Aziz Diané mhm. donc euh, peut-être bu dee présentation dama naan je suis un fii à Dakar euh, j'ai fait mes de l'élémentaire jusqu'au lycée au niveau de la région de Thiès. Euh, après le baccalauréat, j'ai fait l'université Cheikh Anta Diop depuis 1994. Donc j'ai duré 6 ans à l'université, de 1994 à l'an 2000, où je suis sorti de l'école normale supérieure, l'ENS, qui est actuellement la FASTEF. Mmh. nekk professeur de SVT, on m'a affecté dans la région de Fatick, où j'ai fait 4 ans avant de revenir et de gagner un poste au niveau du BST de Dieuppeul qui est toute proche de de la station Rewmi FM euh, ma nekk fa de 94 jusqu'à 2010 ñu affecté ma au niveau de la structure centrale qu'on appelle la CNBST coordination nationale des blocs scientifiques et technologiques dont les locaux sont au niveau de l'INSEPT au niveau du camp Claudel donc agent CNBST la dépendant de la DMG mooy la direction l' enseignement mooy secondaire général du ministère de l' éducation nationale kooku peut-être sama parcours professionnel la mhm. sama parcours politique nag maa ngi ko commencé à l'université comme tout bon étudiant on a commencé voilà à côtoyer les mouvements élèves étudiants Euh, ay amical nekk ci notamment l'amicale euh, thiessoise euh, politique bi maa ngi ko duggee à partir de, du mouvement des élèves étudiants socialiste Je salue au passage camarade Mor Faye mi nga xam ne durant les années de Braise juste après l'alternance pratiquement ñun lañ jël flambeau bi au niveau du MES. Euh, sama liggéey xaw ma éloigné un peu Dakar mais n'empêche durant les grandes vacances je venais je participais aux activités du MES di dem ay réunions au, niveau de la maison du parti socialiste ba l'année 2006 ci la ñu tuxu boo gisee mën a tuxu man j'habite j'habitais Guédiawaye waaw ah. ah, boo xoolee la population de Jaxaay l'écrasante majorité vient de Pikine Géejawaay ci laa am kër jaxaay ma tuxu bi ma tuxoo jaxaay yàlla dogal euh, parti socialiste boobu ma nekkoon mhm. nekkatuñu mes on n'est plus des étudiants ñu ngi nekk dans dans le milieu du, du travail nekkatuñu aussi des jeunes dépassé nañ l'âge de trente cinq ans nekk ay adultes donc ci lañ dox ba am le parti socialiste au niveau de la commune de Jaxaay muy la toute dernière coordination dans la région de Dakar ñu bokkoon ko ak euh, commune Tivaouane Peulh Niague donc euh, la commune de Jaxaay Parcelles Niakoulrab ak Tivaouane Peulh Niague ñoo ko bokkoon mhm. coordination boobu yàlla di dox di dox bee ay jafe-jafe am au niveau du parti socialiste. defe naa ñun ñëpp noo ko dund. Mhm. au niveau de du Sénégal et partout à travers le monde. nga beru dem ci xalifa Sall. Khalifa Sall génn ñu gëm ko gëm ay conviction am du jëmm ji mais pas mu teg ak li mu doon dégagé di ñu ko woon ñu xam ni kii bu ñu ko toppee Sénégal mun na am ci moom ndax gis ni mu defee Dakar. ñu gëm ne kii bu toogoon ci bopp réew mi dina mën a amoon le Sénégal d'un point A vers un point B ñu topp ko ak suñu doctrine socialisme ba léegi ñun on se considère comme des socialistes parce que c'est le Sénégal qui est pays social alors ñu génn dugg ci euh, initiative c'était en 2017 participer ci élection législative yi su la label Manko Taxawu Sénégal qui qui était avant Manko Wattu mm-hmm. en 2017 mais Khalifa Sall ci duggoon ci label initiative bi mm-hmm. initiative pare on, on parlait de Manko Taxawu Sénégal ba mu yàgg y a eu la taxawu Sénégal bi nga xam ne judd na après les élections de 2019 bi nga xam ne ñun ñëpp gis nañ ñun ñu ngi participer woon ci coalition Idifo président avec le président Idrissa Seck euh, bi ñu fa jógee nag plateforme taxawu Sénégal taxaw man ma bokk ci ñi nga xam ne liggéey nañ ci ci département bu Kër Massar ndax Jaxaay mi ngi bokkoon ci département de Kër Massar c'est après découpage la ñu génnee Rufisque Euh, safurla dénk paas yi moo ñëw xaajale moo ñu génnee euh, département bu Rufisque indi ñu département bu Kër Massar mais bokkoon naa ci ñu doon coordonné foofu au niveau di département de Rufisque euh, di coordonné aussi la commune de Jaxaay ba léegi foofu laa nekk ñu taxawu Sénégal que je coordonne dans dans la commune de Jaxaay parcelle bokk aussi ci responsable départementaux yu le nouveau département de Kër Massar mhm. yeewi askan wi juddu ah taxawu Sénégal nekk une partie intégrante de Yewwi avec tant d' autres partis ñu remercier suñu leaders yi parce que ils nous ont pu construire une bonne coalition donc loolu daal suma parcours euh, mm-hmm. politique la mm-hmm. ba ni yàlla dogalee ci kattanam mm-hmm. euh, ma am majorité ci parmi les neuf ma ëppale leen bokk ëppale leen ay xob ñu fal ma à travers le suffrage direct ma nekk la le nouveau maire de la commune de Jaxaay Parcelles okay. tey nga nekk maire bu commune bu Jaxaay Parcelles Assainies alors tey ban sentiment yow nga amoon ni euh, élection bi euh, daa ngi si mën a wane sa bopp tey ak coalition Yewwi Askan Wi. bon lu tax ñu man ma gëmoon ne war na mën a baax c'est parce que tooguñu toog ba ren rek ñu jóg wax naa leen am naa tuuti parcours politique. te parcours politique boobu mayoon na ma depuis 2014 ma nekk un conseil municipal. bokk ci l'une des très rares commissions yi doon ndox biir jaxaay muy la commission éducation où j'étais le rapporteur donc nekkoon nañ sur le terrain beneen bi parce que sama parcours mouvement associatif la boo xam ne waxuma ko fii mooy. jiite woon nga AIC wala zone naa yàggoon naa nekk ci terrain bi nekkoon président de l'AIC plan Jaxaay depuis avril 2008. qui est la qui était la grande AIC de de Jaxaay bi nga xam ne tey jur na yeneen six ak moom muy sept de 2008 à 2017. 2017 ma nekk le président de zone 2021 bi ma gagné une, une un second mandat nekk aussi. kon yaa jiite ba tey ODCAV. la zone zone zone bi zone. Ah. mais au niveau de l'ODCAV de Rufisque je suis vice-président de l'ODCAV de Rufisque chargé de la vie des zone en même temps je, suis membre de de la CQRP départementale de Rufisque mais au passage rek dañu war a après sende pour créer le nouveau ODCAV de Kër Massar xam naa ren wala déwén incha allah en tout cas ñu ngi ci projet bi mais. Euh, expérience boobu ñu amoon ci mouvement associatif bi euh, surtout du point de vue des jeunes man boo demee jaxaay je suis plus connu par les jeunes ndax nawetaan ku ko wax rek wax jeune. jaxasoo bi waaw. donc ñun ñu ngi woon ci terrain bi comité de gestion d' école yi dañ ci doon yëngu l'unique case de jaxaay bi nekk booy dugg jaxaay man maa nekk président comité de gestion bi depuis le départ ñu ngi ci moo ñu mayoon ñu xam ne ñun au moins xam nañ ñu xam nañ ci terrain bi nekkuñu des novices. nekk nekkuñu des yi nga xam ne ñu toog rek transformé wu en politique politicien. dafa am fu ñu mel noonu foofu walla non am na fépp foo dem Sénégal am na ñoo xam ne c'est des politiciens maanaam xamewuñ leen. Mhm. leneen lu dul politique. kon na nga rampe yow. man waaw mouvement associatif laa jaar rampe politique bi aussi wax naa la sama jaar jaar. dëkk biir jaxaay xam fa lu bari parce que depuis 2006 ña nga fa ba ñuy démarrer daanaka jaxaay ña nga fa. Mhm. ba tey kon xam nañu gox bi. fort de tout cette tout, toute cette expérience ñu gëm ne tey bu ñu amee plateforme politique bu baax bu ñu fa ne copp yàlla mën nañu may chance moo tax ma remercier sànq les les vingt et un leaders politiques au niveau national qui ont signé la charte de Yewwi Askan Wi parce que ñoom ñoo teg suñu loxo vraiment une très très très belle euh, coalition. est que yomboon na. c'était pas facile tànn bi tànneef bi laata ñuy yegg. si jogante bi partout au Sénégal ñun xam nañ ne les grandes coalitions. Benno Bokk Yaakaar Yewwi Askan Wi euh, Wallu Sénégal donc yooyu euh, tànneef bi ci gox-goxaan yombul loolu sax tax na coalition yu bëri tas na Benno Yewwi bi ma bokk tas na waaye ñun jaxaay yàlla dafa ñu may sutura ginnaaw bi ñu nekkee cinq candidats bind Euh, ce qu'on appelle la commission nationale d'arbitrage parce que nag <laughs> Yewwi bi daf ñu may daf ñu tànn leen ku leen neex bu ngeen juboo ci candidat d'accord nañ ci ñun tooguñu fële rek tànnal ñu dañu ne def leen investiture ku mu neex mën na nekk candidat dans Yewwi ñu déparé ci nombre bu am solo di consensus consensus ba arrivé à cinq cinq yi nag kenn bëggul woon bàyyi c'est normal parce que ku nekk danga nga sa parti daf la ngemb pour nga ñëw nekk candidat au niveau de Jaxaay Parcelles mais li ñu charte bi waxoon bu ngeen fa eggee consensus ba sës bind leen def ce qu'on rapport détaillé ñu xam fi ngeen jaar et que mu ñoo xam deux la moo xam plusieurs ñu ñu def seen parcours parce que pour trancher des gens il nga xam le profil des uns et des autres parcours boobu xam naa au niveau national ci la sukkandiku ba tànn ma. moo def différence bi. waaw loolu laa jàpp mais itam ña nga xam ne mooy ñeent ñi nga xam ne tànn ñu leen ak ñeneen ñi nga xam ne parti yi yegsi wuñu ci biir cinq yooyu mais dañu def unanimité autour de man donc c'est l'occasion à travers cette émission ici au niveau dans les zones de Rewmi Euh, FM ma sant leen parce que nag gënuma leen ci lenn mais accepté nañ bi ñu nee jaane la coalition Yewwi Askan Wi nekk bloc ce qui est un peu au Sénégal ñun dund nañ ko loolu may nañu doole di jaxaay alors que les gens séntuwuñu woon parce que jàppoon nañ ne bon c'est les jeunes c'est des jeunes c'est des jeunes alors que xamuñu ne coalition bi c'est plusieurs partis et que ki ko jiitee am na une forte assise au niveau du mouvement associatif au niveau de Jaxaay donc loolu lépp daal moo tax yàlla si suturaam tax ba la majorité ñu am ko en tout cas ñu ëppale ay xob par rapport ak ñeneen ñi. juñu nga ko léegi nee nañ jeune jeune euh, ñu ci bari ñu ngi naan jeunes yi sax amuñu expérience mënuñu daal di jëmal kanam li nga xam ne moom moo jëm ci mairie yi lan ngay tontu ci loolu waaw xam nga jeune cela va de soi cela va de soi que euh, y a jeune et jeune xam nga bu ñu nattee tey ce que disent les textes au niveau de la constitution sénégalaise, est considéré jeune celui qui est âgé de moins de 35 ans. Entre 18 et 35 foofu la jeune nekk de 0 à 18 ans dañ naan dañ naan bébé l'enfance après boo yeggee 18 ans ñu considéré comme un jeune diggante 18 35 ans texte Sénégal dafa jàpp ne foofu tu es mais ñun weesu nañ foofu la plupart des maires qu'on a élus sur le plan euh, juridique ils sont plus des jeunes nu nous sommes des adultes man mii tey bu ma la waxee ne j'ai quarante huit ans ren maa ngi dugg suma quarante neuvième année du ma xale <laughs> on a fait un de chemin euh, depuis deux mille suis dans la fonction publique je suis à ma vingt deuxième année de carrière kon je suis pas dinañ nekk jeune nii devant les gens parce que suñu doxalin la jëmm ji ni ko yàlla bindee mais en en réalité background bi mi ngi fi te nu mu amee ci man noonu la amee ci yeneen maire jeunes yu bari am nañ background bon beneen bi aussi il faut que nit ñi xam ne jamono dafa dox le monde a beaucoup changé nous vivons actuellement la toile d'araignée mondiale World Wide Web mais boo mënul tey maaseeg jamono jooju di dugg Facebook di dugg Instagram di dugg WhatsApp di manipuler mën a tiim sa ordinateur saisir transformer ko en PDF envoyer ko à des partenaires xarala yooyu tey yu bees yooyu am na yenn âge boo ko yoree. Mhm. déjà sa gis-gis bi tu ko mayiti am na ci bëri ñoo xam ne ils sont très expérimentés mais xarale yu bees yi daf leen dépassé tuuti et je me rappelle d'une avec le président Khalifa Abacar Sall bi mu génnee euh, prison bu ñu recevoir au QG à Sacré-Cœur moom il a osé nous jamono ji c'est l'âge où les jeunes doivent se placer devant lu tax parce que jamono moo changé ñi am 60 ans 50 ans 40 jëm suuf ñooñu ñoo war a yor réew mi depuis les communes en passant par les départements en passant par jusqu'au niveau national. Mhm. mais loolu euh, fit la bu ñu yokkoon xamal nañu ñun la ak ñeneen ak ñeneen donc ñuy wax ne ay jeunes lañ c'est vrai ay jeunes lañ d'accord mais nag aussi l'expérience et la te bu ñu beddi. mag ñi ci mbir mi. ci lañ bokk ci lañ bokk looloo tax conseil municipal am solo. Mhm. vous retrouvez dans tous les conseils municipaux du Sénégal des personnes qui ont soixante ans jëm kaw loolu da ko fay gis bu dul kenn di ñaar. Mhm. ay mag ña nga fa ci góor ay mag ña nga fa ci jigéen. ñu seen expérience dafa war a may ñun ndaw yi ñu déglu liin donc il faut toujours conjuguer les différents couches sociales góor jigéen mais aussi les différentes tranches d'âge pour ñu mën a dem vers développement réel. ba mu bañ a nekk ci làmmiñ rek mais mu nekk lu concret. yéen seen émission gox bi ci rajo Rewmi FM di ci dalal Abdoul Aziz Diané nekk euh, maire bu euh, Parcelles Jaxaay euh, monsieur le maire bu ma la doon wax tey nii defi yi ngeen di xaar di ngeen di xaar tey ci commune ba yéen défi la jàmp na de. waaw défi yu yu yu am solo la. fi yu rëy ndax ñun on a hérité d'une commune qui a été amputée. ah amputé comment. waaw dañ ko dañ ko dagg xam nga bu nee redécoupage. mooy dañoo daggaat. changé na lu bari. changé na lu bari ñu nekkoon ci commune bu tudd Jaxaay parcelle ñàkkurab ci biir commune bi la ëppoon li ci doon indi fond ndax nee na la conseil municipal la woon depuis 2014. donc li ëppoon li doon indi recette mu ngi doon jóge ci domaine foncier bi domaine foncier bi nga xam ne ma nga nekkoon ñàkkurab tey ñàkku rab avec redécoupage bi dagg nañ ko yóbbu ko Tivaouane Peulh domaine foncier boobu mi ngi nekkoon daaru cubbu daaru cubbu tey dagg nañ ko yóbbu nañ ko Sangalkam kon l' actuelle commune de Jaxaay Parcelles desetul réserve foncière. amatu leen amatuñu réserve foncière. maanaam la fa des c' est des maanaam boo jëlee tey Parcelles Assainies ci biir parcelles yi am na unité yoo xam ne dañ ci tabax jaxaay mais huit unité dañu ci tabax jaxaay le reste seen i borom ñooy tabaxal seen bopp mais boo ne la res seen i borom ça veut dire ñooñu am na am na ñu ko moom. ci biir parcelles yi mu des ay sites yoo xam ne mun nañ ci créer ay édifices poste de santé école foyer yooyu ma nga fa commencé gu ñu jël gu ñu yi entièrement mais dinañ ci travail avec la SNHLM incha allah travail avec l' autorité bi fa nguur gi samp muy le sous-préfet de Jaxaay parce Jaxaay actuellement est un arrondissement. la fa des aussi mooy cité gendarmerie cité la. cité Dubaï cité la cité Teranga cité émetteur donc c'est des cités donc réserve foncière bi daan ëpp lu mu dugal xaalis nekkatu fa mu nekk pour ñun ñi nga xam ne nous sommes une nouvelle équipe benn défi ñun dañu war a nekk des gens ingénieurs. fan ngeen war a jaar tey. voilà pour am ay ressources. waaw maanaam niche de de de réserve yi nga xam ne nii yëpp moo mën a dugal taxe waruñu ci négliger dara et là c'est l'occasion de lancer un appel solennel à l'endroit de la population de Jaxaay parcelle pour ñu xam lan pour ñu xam ne ñun ñuy falu suñu dënn liggéey moo ci nekk mais pour nga liggéey il te faut des moyens kon bu kenn xeep benn dërëmu taxe bu mu war a verser ci keesu mairie bi niche yooyu nag dañ ci war a liggéey taxawal de des services techniques communaux taxawal de des des gens agent de recouvrement yu dem ci terrain bi taxawal des gestionnaires taxawal de des régisseurs lu ñu lu ñu dajale bañ ko xeep tàbbal ko ci compte ba ñu am ca. ci trésor ndax loolu moo mooy mooy li yoon mais itam ñun ñi nga xam ne ñun la ñu fal ngal la taxe yooyu nañ ko teg ci yoon bu borom boutique bi nga xam ne mooy joxe war ci mën a gis boppam ci naka lampe ba ko tiim dafa war di tàkk muy sentir ne buntu bëkkate mu ngi leer mbalit bu muy teg il faut ñu koy yóbbu ñu jékki-jékki nga indil ko bac à poubelle bu bees jékki-jékki peintural ko garabam ne bu laajee lii fu mu jëg nga ne ko sa cent francs yi ngay joxe par jour juuti boobu mais kooku waxuma la cent franc mun na joxe lu ko ëpp parce que day xam ne mu ngi liggéeyal boppam. donc défi yi yaatu na. jaxaay nag c'est l'une des très des plus petites commune dans la région de Dakar c'est l'une des dernières communes bokk na ci mujjee juddu comme ay Kër ma Massar Sud Kër saar noor mais c'est l'une des plus petites communes et à travers les ondes. damay wax ak l'état central pour ñu xoolaat découpage bi redécoupage bi. yow da nga ci am doute wala daa am. loo xam ne dafa tey sa xel ci ci redécoupage euh, bi. lu tey daf ci am lu baaxul. Ah, lan moo ci baaxul. boo ñëwee tey jaxaay di dugg jaxaay. Hmm. ñu xam géographiquement. booy dugg jaxaay jaaree la ko jóge Kër Massar di dugg si. deux voies yi booy jàdd bàyyi Sénélec bi di dugg biir jaxaay war a dem ci case des tout bi foofu mooy jaxaay band bande de terre bi la féete à mooy bande de terre bu ñu tuddee lébu gi benn bande de terre la benn bande surface la ñoom ñëpp a taqaloo mu mel ne benn unité la ci biir lébu gi boobu am na unité onze b mi ngi ci biir ci jaxaay la bokk lycée plan jaxaay mi ngi foofu plus à droite booy dem ci euh, brioche dorée bu bees bi ñu baal ma ci li ma koy tudd ci dans vos zones booy dem ci euh, péage bi lycée plan jaxaay mi ngi foofu lycée bi ci jaxaay la bokk alors que li des ci lébu gi ñu ngi ko boole sàngalkam xoolal Sangalkam na mu sore donc ñun suñu revendication tey ñun jàpp nañ ne bande boobu yëpp. léegi ki su ma la déggee mooy ki bëgg ki nekk ci xàll boobu wala dem uti ji kayit dana dem ba Sangalkam uti ji kayit. ce n'est plus une gestion de proximité te le code électoral. bi nga xam ne tey dafa dafa le code plutôt des collectivités territoriales boo ko liiree li li wundu acte trois de la décentralisation c'était de créer des communes viables des communes viables basées surtout la gestion de proximité pour que recettes ñu mën ko di jël à temps et cetera mais loolu noonu lébu gi boobu ñu jël bëgg ko boole Sangalkam ce n'est plus une gestion de proximité. kon incohérence dafa am ci mbir bu leer bu leer bu yàgg sax parce que foofu ay temps bokkoon na Bambilor ñu jël ko encore boole ko ci Sangalkam kam au delà de de foofu boo demee plus à droite da ngay dem cité Almadies 2 mais Almadies 2 ils sont plus proches de de de Jaxaay une partie aussi des Parcelles Assainies amputé nañ ko yóbbu ko Kër Massar Sud. donc vous voyez. donc kon liggéey nga leen xaar. lu ndaw c'est-à-dire ñun lu ndaw la. mais liggéey boobu xam nga boo amee commune bu ndaw neex na gérer mais nag le poids des communes dépend de la surface occupée kon ñun am nañ droit en tant que euh, des mandataires parce que dañu fal ay ndaw lañ dañu dénk moomuñu ñu wax partout où besoin se fera que foofu am na incohérence foofu am na injustice ñu xoolaat ko ba l'État au niveau central. mën a xoolaat redécoupage boobu mu xu redécouper ko encore. pour que mu am rek gestion de proximité parce que ñooñu may wax population ya fa dëkk. da ngay dégg ñu naan la fa ñu yóbbu vraiment dafa sori. ba l'écrasante des électeurs ya fa dëkk jaxaay la ñuy voter et ça <laughs> je ne le dis pas parce que je le dis nañu vérifier sur le terrain. Hmm. donc c'est à travers vos ondes may ñaan ANAT l'agence nationale de l'aménagement du territoire. le ministère d collectivités territoriales. Hmm. la République. yaa a des erreurs te bu ñu ñëwee sur le terrain dinañ ko constater. ok dinañ ko constater léegi euh, tey li nga xam ni nag moom moo jëm tey ci chantier yi monsieur le maire lan moo war a doon tey priorité bu njëkk. ci commune bi ginnaaw bañ la falee te jo jokkalante ngeen lenge waaw xam nga euh, passation sax dafa guñ ko dafa guñ ko ndax lu tax waaw li koy yeexal découpage bu bokk na ci waaw maanaam gox yi ñu dagg yóbbu bu ñuy bu ñuy def euh, arbitrage am na ñoom patrimoine bu ñu war a yóbbu même bu ñu fa fekkoon tey dette am na nu ñu war a répartir dette boobu ñoom am na loo xam ne nii ñoom ak seeni i commune ñoo ko war a fay mais buñ ko sasee commune bu jaxaay parcelle ñàkk rab te commune bi nekkatul jaxaay parcelle ñàkk rab dafay am erreur day am c'est dans ce sens que le sous-préfet nous a notifié ça xamal ñu ne que l'autorité qui a compétence c'est le gouverneur parce qu'il s'agit de deux départements différents maintenant Kër Massar ak Rufisque bu fekkoon c'est dans un département c'est le préfet qui a la compétence donc il faut ñu taaxir tuuti te man jàpp naa ne la ma sous préfet di wax sama intérêt la man kon war naa mën a tey ñu tàmbali liggéey bi ci beneen fànn muy lan installer les commissions dem vers un débat d'orientation budgétaire maintenant li ngay laaj ci priorité yi dafay ñëw recouper le programme un ñun bi ñu nekkee ci campagne bi dañu tëggoon ab programme waaw dañu tëggoon programme bu ñu tuddee woon yeewi askanu jaxaay yeewi askanu jaxaay ah, yi ngeen leen de ñu ngi xaar waaw ci wàllum carte moom yeewi nañ leen te ñu bëri tam kontaan nañu wax dëgg yàlla jaxaay du ma ne ñëpp de déedéet déedéet l'unanimité n'existe pas sur terre waaw loolu amul yàlla mi ñu bind sax am na <laughs> ñu koy dingat yàlla ma yàlla baal mais euh, ñu bëri biñ ne jaane falu na am nañu ci kontaan ndax bu ñu demee ba yenn candidat yi ne ma carrément man de daanaa wax bu fekkee du man yàlla doon yow ndax xam gi nga xam dëkk bi ak nangoo liggéey bi nga nangoo liggéey kon ça veut dire que am nañ tuuti unanimité mhm. programme boobu yeewi askanu jaxaay ñun dañ ko tëggoon ci simplicité boo xam ne mooy dañu def genre constat des problèmes parce qu'il faut problème pour avoir des solutions maanaam fànn bu ne dañ ne lii mooy problème bi ñu gis solution yi mooy lii dañuy proposer on l'avait fait de manière simple mu nekk un document d'une dizaine de pages maintenant ñu seggaat ci def benn genre pliant dépliant le bu simple image ko dañ ci defoon image parce que Sénégal du ñëpp ñoo mën a lire nasaraan comprendre ko maanaam dañuy dem ci neuf domaines de compétence parce que nag sañ-sañ yooyu la état tibb jox ko collectivité territoriale yi kon ñun suñu programme dañ ko tënkoon ci neuf domaines de compétence yi nga xam ne bu ci ne constaté nañ problème bi proposé nañ ay solution léegi nag fal nañ il s'agit maintenant d'aller vers la réalisation de projets Euh, problème ak solution ak réaliser projet bokkul donc solution yooyu ñu proposer dañ koy jël opérationnaliser ko def ko mu nekk des tableaux clairs avec des indicateurs et avec des responsables échéanciers résultats attendus comme ni koy faral di defee pour un plan programme à exécuter mais du tere ñun xam nañ ne bu ñu jëlee bu ñu defee passation de service ba ñu jël entièrement la mairie sûrement au début du mois de mars l'une des plus grandes priorités bu ñu bëgg a exécuter quel que soit nag lu mu ñu mën a coûter am na sax partenaires yu ñu commencé di waxtaan c'est l'éclairage public. on voudrait que dafa tumuraange xel ah. waaw dafa bëri koñ yoo xam ne lampe yi dafa yàqu waaw dafa lëndëm quoi te quand tu de l'éclairage public rek le problème de la sécurité day taxaw ñëpp xam ne ne dakaar Dakar Dakar c'est une ville presque les gens ne dorment pas dafay fonctionner vingt quatre heures sur vingt quatre donc il faudra un bon éclairage public loolu moom dafa nekk priorité ñun waxtaan nañ ci dans le cadre de notre coalition te foofu la ñu bëgg a dem ak la ak le conseil municipal bi nga xam ne les conseils des autres listes dugg si nañ muy lan priorité d' abord mooy éclairage public il faut que koñ leer ba pare mu am suivi benn bu yàqoo sax war nañ ko changer. sentir ko waaw que mu nekk solaire que mu nekk éclairage à travers la Sénélec en tout cas ñu ngi ciy liggéey dinañ ci toog ak euh, les les service compétents. comme la Sénélec comme le sous-préfet comme le commissaire mais loolu chantier bu ñu bëgg a teel sur la sur l'étendue du territoire communal leneen li mooy les nids de poule boo demee Jaxaay Jaxaay bokk na ci commune yi ñu gën a viabiliser c'est commune très bien viabilisée parce que wax naa la sànq Parcelles Assainies la mbedd yu yaatu c'était gendarmerie mooy en tout cas tout bien dégagé mm-hmm. tout est mais nag du tali yëpp moo moo am goudron lu ci bëri la boo fa rombee day donc ci nawet bi bëri na fu ndox daan taa dinaa ñëw ci kanam dafa bàyyi ay nid de poule ñu sañoon avec nos partenaires lu mu bon bon ak lu ñuy génn ci gafakaw yàlla nañu fekk loo xam ne dinañ ci mën a départ. xamagoo leen lu ngeen fa nekk ba tey mais ñu wut au moins latérite. Mm-hmm. avec les pelles mécaniques et ñu ñu ñu ñu mën a fatt nid de poule yooyu nit mën di dem ak ñëw ak seen oto mu bañ am yenn kii beneen bi mooy l'inondation ku xam la commune de Jaxaay parcelle xam ne dafay taa. l'axe des deux voies bi jógee Kër Massar dugg dem ba Sédima ba jëm péage dafay taa day taa bande jaxaay 1 bi ba jàpp Kër Massar dafay taa taa bu metti sax vraiment di ñuy dund hivernage ci moment yu metti te loolu il va il va falloir trouver une solution mais ku xam les neuf domaines de compétence canalisation inondation c'est le domaine réservé de l'État. mais loolu tam dañ koy wàcc. pré hivernage dafa am euh, yenn ci xal yi xoolaat nu ñu koy defaree itam yéen tam du ngeen toog rek xëy na toog di seetaan mbir mi. non doo moom laa la wax gis nga canalisation yooyu sax am na y avait projet un actuellement ñu ngi exécuter le projet 2 et sans doute l'État va aller vers le projet 3 ñun ñu ngi ci doon liggéey am ma qualité de président de zone. collège bi ñu monté woon am na tuuti travail bu ñu fa def avant may nekk candidat donc ñun bu ñu demee ba toog Euh, dañu bëgg a approcher ñooñu à travers le sous-préfet ñu toog def des ñëw technique ñu wax ñu état de lieux. fu mu toll waaw même bu dee ne état moo ko yor ñun ñu def accompagnement parce que kii ñëw sa biir gox di la liggéeyal war nga dalal xelam bu soxlaa ab néeg war nga ko mën wutal bu soxlaa ataaya war nga ko mën wutal loolu pour man luy encourager nit ki la waaw góor te yokk ngóor accompagnement bu bëgg nañ ko def ci projet 2 bii bu demee aussi vers projet 3 bëgg nañ ko def ba pour xam canalisation yi fan lay yem ci jaxaay maintenant bu nawet bi di jub si <laughs> il faudra que quartier bu nekk ñi nga xam ne ñooy taa mu am un minimum d' organisation dinaa ci ñëw dans les quartiers mais bu dara dul dara yow en tant que maire war nga mën a louer ji ay hydrocureur des camions hydrocureur fu taa balaa ngay seetaan ñaari taw ñaari euh, taw ñetti taw ba muy non nga nga ko mu dem hydrocureur yi mun nañu dimbali te loolu maire yi avec un partenariat solide mun nañ ci liggéey génnatul sa gafaka teg hydrocureur di dégagé yow mi itam en tant que responsable mais léeg-léeg nga wàcc ci terrain bi sol say bot du xuus ci ndox mi fekk si yenn kër yi wu leen massa dafa am solo ñu xam ne kat maire bi tëddul nelawul waaye mi ngi nekk di def sa ko appelle mais laata ñu fay yegg itam la leen war yéen itam ak askan wi ngeen wàccoo ko itam ci lan ci ban fan mooy maanaam taxawu ba ndox bi bañ leen sonal foofu mooy hydro saa ndox euh, man li ma jàpp mooy en tant que maire yi hydrocureur rek nga mën a ñëw teg ndox mi lu wàcc nga yóbbu dëgg la nag suñu programme am na programme pavage pavage mun na régler même boo pavé yenn koñ sax mun nga def des pentes mu mel ne ay mu dem verle canalisation yi nga xam ne moom la projet bi projet de di programme mais yooyu munul gaaw munul nekk di tik oo tak ndax état des lieux xamagoo sax loo fekk solution bi gën a gaaw hydrocureur ci la xëy na ak leneen lu nga xam ne bu ñu toogee ak projet bi ba gën a enquérir de la situation dinañ ñu ne est-ce que du ngeen def lii est-ce que du ngeen def lii parce que ñoom c'est des techniciens à la mhm. matière. Mhm. looy song aussi da nga am xam-xam. donc inondation bi daal bëgg nañ ren taxaw ci taxawaay bu nga xam ne li amoon ces deux dernières années vraiment mu bañ a amati. taw nag yàllaa ko moom. l'ampleur de la pluviométrie ñun ñëpp xamuñ ci. Mhm. mais nag bu dee am nañ taxawaay. mën na yàlla mën nañ suturaal na mu euh, a. am solo ñun dañu jàppoon ne ak lu mu baax baax baax nañu delluwaat au niveau de la base dans les quartiers tey jii rek ci suba bokk na ci li ma gën a euh, tax ma xaw a yeex a yegg si fii ci rajo bi heureusement l' émission a démarré à temps. Mhm. dañu nekkoon ak benn quartier di waxtaan ak ñoom vers li ñuy tuddee les conseil de quartier. yéen a ngi koy junj rek koo wax rek mu ne la conseil de quartier. waaw c'est-à-dire conseil de quartier bi. Mhm. ñun dañu jàpp ne moom mooy nekk le gouvernement local du quartier. au lieu ñuy toog di xaar mairie bi kuy am lu muy ñaxtu ci koñ bi day dem ci conseil de quartier et que le conseil de quartier tous les habitants du quartier ay membres lañ mais nag délégué de quartier moo koy ŋànk imam bàjjenu gox relais communautaire et cetera tant ñun demuñu ba conseil de quartier yi di fonctionner non suñu liggéey day des heureusement nag am na ñoo xam ne son sont organisés maanaam fi ñu demoon tey ñooñu déjà seen quartier mi ngi doon dox sous format conseil de quartier bu ñu ñëwee dañ dañ leen wax nañ ko redynamiser redynamiser mooy leen puisque c' est une des unités des parcelle mm -hmm. ils ont beaucoup de personnes am na sax quelques deux trois quatre yu fekkee woon réunion bi ñu ngi travailler au niveau de l' attelage ñu ngi fu ne ci état bi mais ñooñu ay personnes ressources lañ conseil impliqué leen ci. conseil de quartier bu ne danga war a dem ci ñooñu ñu bokk ñooñu c' est des membres d' office conseil municipal bu fa amee conseil conseils municipaux ñu ñuy dugg dañuy bokk. ñooñu ñoo xam seen koñ problème yi ñoom ñoo ko war a drafté sérieux ko. identifier ko remonté ko. muñ ñu ko identifié dañuy dem sax ci solution yi dañuy identifier ne ñoom gis nañ ne lii mooy solution mais liggéey bu ñu koy def c'est en étroite collaboration avec la mairie fo fu conseil municipal nekk maire nga fa kooku mën nañ fa représenter on peut être partout il faut ñu amante confiance ku nekk am lu mu yanu ci sas bi bu fa bu fa benn conseil municipal amul ñun bu ñu woowee man dinaa ñëw en tant wala les adjoints. wala un des conseils municipaux surtout commission compétente bi dinañ dem déglu leen solution yi ñu defandoo ko solution bu nekk nag ñu dem vers la réalisation concrète mais di ko def ndànk-ndànk bu ko defee bu dee koñ bi am na ay partenaires yu fa dëkk am na ci yoon mun nañ ko régler jaru sax muy ñëw ci mairie ñu koy remonter mais bu ñu ko remonter man li ñu jàpp tey mooy euh, dañ koy def benn document référentiel ñoom nga xam ne dafay am suivi mais dans le conseil de quartier foofu la suivi bi di commencer ñun le même document dinañ ko am de temps en temps ñëw rendre compte lii réglé nañ ko ñu baare xam ne lii c'est réglé lii des na am na ci nag loo xam ne quartier yi dinañ ko wax fekk ñun réglé nañ ko à l'échelle communale comme éclairage public bi mhm. comme inondation bi loolu ñun jàpp nañ ne bu ñu yàlla suturaaloon ñu def ko voilà le début du commencement parce que tey bu ñu dawalee un mois bu fekk démarré na deux mois en tout cas au bout d'une année ou deux dinañ gis quartier yi di changer tuuti tuuti. xar kanam ji waaw te quartier bu ñu changé mais commune bi mooy changé. le nœud gordien aussi à Jaxaay c'est la c'est la santé. waaw waaw santé moom boo demee c'est partout même dans le monde mais ñun boo ñëwee Jaxaay dafa am euh, benn hôpital la ñuy wax quoi mais en réalité c'est un centre de santé. Mhm. centre de santé bi depuis projet Jaxaay yi. eggul fa waaw comme tant de maisons trois cent presque quatre-vingt-six maisons yoo xam ne eggul bon di tàllal loxo état bi pour mu eggale ko état bi dafa war a eggale le projet Jaxaay mu egg parce que dina régler lu bari. problème ubbi dëkk bi fa am ak yooyu yëpp dañ ko war a régler je sais que sous-préfet mi ngi ci et je wax na mu ne état bi ñu ngi ci mm-hmm. mais centre de santé boobu dafa nekk en chantier ba léegi. ah waaw depuis bi jaxaay di jaxaay 2006 ba tey ba léegi donc presque quinze ans ñu ngi fa nekk parewul liggéey bi avancé wul te bâtiment yi moom pare na ba ñu raax ko donc finition moo des. équipement ak personnel. Mm-hmm. donc xanaa ah. kay jàpp ak njàppandalu ministre bu yor wàllu wér-gu-yaram itam. waaw ñoom ñoo am compétence xam nga bu poste de santé moom c'est les maires yi. case de santé poste. mais boo yeggee niveau centre de santé il faut le le le conseil départemental. bu Kër Massar bi nga xam ne bientôt dinañ commencer liggéey en étroite collaboration ndax. ki ko gagné ak ñun ñoo bokk même coalition. Mm-hmm. yeewi daal yeewi ngeen Kër Massar bi yëpp quoi. ouragan la. Mm-hmm. tout emporté sur son passage malgré yi nangooguñu ba tey Euh, centre boobu bu ñu ci travaillé ak département bi travaillé ci ak les service compétents te l'un des services les plus compétents c'est le ministère de la santé de l'action sociale bëgg nañ dem toog ak ñoom surtout aussi district sanitaire parce que ñoo gën a fës ñu ngi dépendre de Sangalkam sûrement bu ma tudd dañuy indi district bu Kër Massar ñu travaillé ci ak ñoom avec le médecin chef de district ñu xool yan yoon yan ñu mun a tegal. pour ko ñu mun a terminer centre boobu. amul yeneen yi nga xam ne bëgg nga ko fa dolli tey faj bi mën a gën a am. mën a ñoom si centre boobu bu démarré dafay régler lu bari. parce que ñun bu ñu amee cas yi ñu dem Youssou Mbargane ou centre de santé bu Kër Massar donc boobu bu démarré day régler lu bari mais nag boo xoolee configuration commune bi ñun nous avons trois grands quartiers trois grands Jaxaay Parcelles Assainies ak Cité Gendarmerie actuellement y a qu'un seul poste de santé. jaxaay la nekk qu'un seul poste de santé. mooy polariser lépp parce que avant bu muy nekk jaxaay parcelle ñàkk rab am ñàkk rab amoon na benn daaru ci ba amoon na benn on pouvait compter trois postes de santé mais ñooñu dem nañ ci yeneen commune il ne reste qu'un seul poste de santé fonctionnel boo fa demee Mbemba le matin da ngay yërëm ña fa ne. baatu rang bi. day fees y a tellement de femmes et d'enfants man les quelques rares occasions yi ma am pour travailler ak ICP bi en tant que président de zone ñu waroon fa dem pour ay programme man bu fa ñëwee le matin damay tiit tellement de monde. je yi dis kon kenn gënu la xam solution bi. solution bi mooy créer yeneen c'est-à-dire les trois grands quartiers ku ne dafa war a am benn te cité gendarmerie maire bii fi jógee nii bi ma naan la nekkoon naa ci conseil tabax nañ fi benn centre de santé ngi à la cité gendarmerie pare na mais c'était pas fonctionnel kon ñun suñu rôle mooy ànd ak le ministère de la santé ak district bi ñu xool. bu fonctionnel lu ci lu ci lu ci des ndax mu gën a dimbali itam. askan wi voilà fonctionnel même bu dee dañ ne ñun ñoo koy équiper avec les parce que am na ñu ñu commencé contacter ay peu de loolu dina ñëw ñu équiper ñoom itam ñu am lu ñu dolli ah affecté ñu le personnel boobu démarré fan yii rek ñu ngi wax ak benn partenaire bu nga xam ne électrification solaire la ñuy jàppale ak am nañ benn projet de construction de poste de santé su boobaa dañ koy xool fu ñu koy implanté ci Parcelles Assainies yi. donc les trois grands quartiers ku nekk boo amee poste de santé centre de santé bi démarré ma foi la question sanitaire à Jaxaay dina nekk lu nga xam ne. Mhm. si c'est pas réglé à 100 pour cent au moins réglé nañ très bon pour pourcentage. Mhm. wax ci itam ci wàllum loisir ak li nga xam ne moom moo jëm ci dëkkuwaay bi foofu euh, cadre de vie bi itam lu ci am solo wàllum tàggat yaram itam ndaw ñi dañ koy soxla euh, programme bi lu mu ci lu mu ci jukki. non dafa li nga wax noonu Bemba dafa am solo. parce que la jeunesse boo leen bëggee canaliser. surtout ci surtout yow ñu ngi lay féetale ci jeunesse bi. ñu bëri sax nañ nawetaan bi moom dootuñu amati problème ndax seen président bi falu na maire <laughs> te man ku ma xam xam ne man moom sama lépp ci ci yoon laa ko teg ndax. bon prof de science la nous les scientifiques on est un peu compliqué. Hmm. dañu yàgg tëddee njaaxaanaay ci lépp lu ñu nekk donc yàlla nañ ci yàlla dimbali nag. am na solo parce que des fois ñu wax ne le pouvoir rend fou. le pouvoir absolu rend mais ñun. ñu bañ a yegg foofu. waaw yàlla bu ñu yàlla. yàlla nañu yàlla iir yàlla bu ñu yàlla seetaan ba ñuy tàbbi foofu ñun daal nañu ànd ak suñu suñu modestie xam ne affaire bi jàppal ma jàpp la mais euh, jeunesse sport culture loisir lu war a am la Euh, pour vous donner rek le tableau depuis ba ma nekkee président zone ak avant sax c'était bien avant conseil municipal président zone dañ doon mën a benn combat pour am suñu stade ñu xeex avec le conseil municipal le maire ba ñu délibéré benn stade au niveau de Niakourab maire bi dem wuti un un promoteur waa benn partenaire promoteur foncier mu commencé réaliser boo fa demee Niakourab mur bi déjà génn na ñu programme benn centre de santé centre commercial plutôt devant mu am parking nekk na fondation ba jóg mais ñàkkurab dem na dagg nañ ko dem na dem na Tivaouane Peulh quoi ça veut dire tous les efforts yu ñu réalisé stade ba dem na léegi noonu da ngeen koy bàyyi mu dem. ah mais <laughs> état la moo tax ma naan état li mu def est-ce que xawal na ko bu baax au fond dafa ñëw gars yi dañ tàgg nii rek mais enquête bi des na enquête bi des na. mais est-ce que mënu leen jox foofu nga xam ni tàmbale ngeen ko tey. balaa ngeen di utiwaat beneen beneen suuf bi nga xam ni tey di ngeen ko mën a defar loolu. l' état l' mën na ko à travers l'ANAT ñoom mën nañ redécouper waat donc. ndax dinañ ñoom dinañ deltuwaat ginnaaw. bon jeune ne sais pas xam nga ñun aussi en tant que ñoo xam ne dañuy yor maire yi am occasion toog ci onde yi mënuñu lu dul wax suñu bëgg-bëgg. parce que nag doomu aadama boo xul bëgg-bëggam du saafarawu mais li ma li leer ba leer moom mooy stade ba nekkoon ñàkku rab dagg nañ ko ak ñàkku rab ñàkku rab day dem Tivaouane Pël ñàgg maanaam mbirum stade yéen mënatoo leen ko wax fi amatuñu stade bu ñu ko amee itam ci biir jaxaay parcelle lu ñuy xaj-xajal la rek day nekk espace yu ndaw parce que yàlla may nañu ay rond point yaatu léeg nga dégg fii dégg faa mais comme ko tooguñu ak SNHLM mënuñu am lu leer mhm. mais lu ma leer ba la même superficie ba nekkoon ñàkkuram mënutu fa gisuñu ko fa. amul espace bu amul fa lu toll noonu mun nga nag xaj xajal benn. Mhm. stade ak cadre de vie tam lu am solo la. Euh, ci dëkkuwaay. ci wàllu sport bi toujours. gis nga pour vous expliquer ñun bi jaxaay di démarrer ñu ngi bokkoon communauté rurale bu Sangalkam ñun on jouait à Sangalkam terrain municipal bi. sori na de. bi ñu découpé ñu am suñu zone bopp bokk ko ak Tivaouane Peulh zone onze bi ma jiitee ñu commencé di jouer à Niag. bi ñu dë découpé waatee ñu créé ña euh, Tivaouane Peulh zone 12 ñu am suñu zone 11 ñun fexe nañ bay joué ji au niveau du stade Ngalandou Diouf xam nga Rufisque Jaxaay soriwul. Mhm. boo yegee pont bi rek jéggi péage bi daanaka yaa ngi tëngëj donc ba fii ñu waxee yow on joué là-bas bu fekkee génn nañu ñëw Kër Massar duñ fa mënati joué officiellement xanaa foofu libre <laughs> tous les tous les stades sont sollicités. Mhm. fi nga mën a dem joué ji mooy Mbaaw wala le stade de de Malika. wala Alsane Djigo imaginez distance yooyu. Mhm. donc il faut ñu fexe. am dara balaa équipe bee yegg sax sonn. il faut ñu fexe am dara jaxee il le faut xaw ma nag nu ñu koy régler. Mhm. vraiment di gën a tàllaat loxo état nañu xoolaat li ñu def li ñu def doy na waar. donc ñun gis nañ ne pour que loisir boobu mën a dox ñun la commission dafa nekk commission jeunesse sport culture et loisir. noonu la mhm. tudd. mais ñun dañu jël. ne euh, bu ñu toogee ak conseil municipal bi parce que du ñun waa Yewwi rek ñun ñëpp la nous sommes la famille jaxayoise dañ leen bëgg a proposer ñu jël commission bi ñu tas ko ñaar def commission jeunesse sport def commission culture loisir fu ci nekk am président vice président membre ñu wut ay dimanche président vice président rapporteur ñu wut ay membres au sein des personnes ressources de la commune ndax lu tax dañu gis ne point de départ bi ASC la ASC association sportive et culturelle. Mm. constat bi mooy ASC boo dem on fait que du sport. moom rek dégg. dans le sport on fait que du mm-hmm. kon xam nga culture dañ ko nasaxal. ñun ñëpp xam nañ ne dans le mouvement nawetaan culture bi day gën di suux. Mm-hmm. moo tax ñu ne bu fekkee dans ak commune de Jaxaay parcelle bàyyi nañu commission yooyu mu nekk benn le volet sport mooy mooy mëddaat yeneen yi. moo tax ñun pour régler ça dans Jaxaay dañ ne léegi nañ ko tas ñaari commission autonome fii jeunesse sport. qui va surtout accentuer dans le volet jeunesse accompagnement formation mais aussi sport culture loisir kañ ko dénk wala boog ñañ ko dénk mais ñoom <laughs> dinañ xool culture bi nu muy doxee ak loisir bi xëy na dina joxe ay résultats probants. ok euh, ay résultats probant ñu tàbbi ci li nga xam ne moom moo jëm as tuut ci wàllum politique responsable politique nga itam bokk taxaw Sénégal euh, tey gis nga li nga xam ne moom moo jëm ci euh, ndaje bi nga xam ni amaloon nañ ko ci biir Ndakaaru place de la nation ñuy wax li nga xam ne moom moo jëm mbirum ñaari tur yi ba tey jógee gu fi ànd sàmm jikko yi mi ngi woon ci terrain bi sa jàngat gu njëkk lan la da nga jàpp ni état dafa war a génne leeral mbir yi mu leer. waaw xam nga boo jiitee moom toujours ñi nga jiitee bu amee problème da nga war a génn leeral. man mais li li njiitu réew mi wax itam mm, dalul seen xel. maanaam. Euh, lu wax ni lii du fi am. du bon man xam nga man euh, maak yow ñoo yem Bemba nous ne sommes ni Dieu ni prophète nul ne sait ce que demain sera fait mhm. mais jël say matuwaay dafa am solo man je pense ànd sàmm jikko yi li mu wax maanaam nañu gën a teeŋal loolu la ñu wax ah. Mm-hmm. ils ont ils n'ont pas dit que nañu créer non dañ ne gën a yokk peine bi qui peut de cinq à dix ans loolu la waa ànd sàmm ji koy wax loolu aussi defe naa yow mi nga xam ne yaa jiite réew nga nekk dans les dispositions de dire devant beaucoup d'autorités internationales nga ne leen lii du fi am kon bu la proposé ñu teengal war nga cee mën a ànd comme ndax yaa ngi may comprendre. comprendre mais boo nee non disposition mu ngi fi alors que cette disposition. Mm-hmm. n'a rien réglé. o contraire problème bi mi gën a empiré wu parce que ñu ngi gis ne mbiru ñaari tur yi. waaw mi ngi gën a yokku waaw léegi nag boo nekkee cim réew. loo xam ne baaxul mi ngi yokku. y a lieu de s'arrêter et de se poser la question comment solutionner ça donc li ànd si am jikko yi di laaj dafa bokk ci début de solution c'est pas une solution entière et globale war na am yeneen disposition yu jël bu fekkee dañ ko bëgg a bloquer mais bu leen waxee ne non disposition am na fi alors disposition yi réglé wu ko mais dafa empirer kon am nañu dégluwante. kon donc ce qui veut dire que assemblée waroon dëgg def ko. waroon na déglu ñële bu baax liñ koy ñaan mu amplifier mu yokku peine bi yokku pen bi dafa am lu muy lu muy lu muy jëriñ pour pourquoi le le problème de de viol. à en à un certain ñu yokk pen bi. criminaliser ko. criminaliser ko endurcir peine bi pour pourquoi alors que ñëpp xam nañ ne viol baaxul lii tam bu jàppee ne baaxul bu jàppee ne laa wax de te ñun ñëpp xam nañ ne baaxul dëgg yàlla. kenn bugg ko doon quelqu'un qui est censé comprendre buggoo ko doon nekkoo ko musoo bëgg doon loolu ñaanuloo sax sa doom wala sa mbokk doon ko ndax ku ko ku ko am ci sa njaboot yàlla tere wala koo xam da koy daw da nga koy daw da nga njiitu réew mi dafa war a trancher mooy il faut il faut que les autorités restent à l'écoute de leur peuple man message bu may lancer la parce que la politique détient le monde malheureusement la politique détient le monde. est-ce que mbiru politique yi itam raxu si. tey le le le le sénégalais qui est notre président détient le peuple à travers la politique kon boo politiquee ba yegg ci benn station bi te loolu lu may wax sama bopp la d'abord il faut que ñuy déglu la population. foo faut ñuy xool li nga fi nga xam ne mooy metti ñu di koy régler ça peut être un problème politique. ça peut être même des lobbying parce que nag adduna bi kenn bàyyiwul kenn ak sa morom. mais ñu ñu bëri dañ ne ñoom ñooy def promotion borom ñaari tur yi parce que ñoom ñoo ciy wax di ci dox euh, di def promotion bi kon ñoom buñ ko yëkkatee wax si dafa mel ni ñoom tam ñuy favoriser li ni mel. waaw amee problème la problème dañ ci war a dox wax ko comme ni ko diine yi waxee problème bu amee dénoncé ko boo ko mënee dindi sa loxo dindi ko boo ko mënul. nga nga dañ boo ko mënee dindi dindil boo ko mënul nga nga nga met nga nga wax ko ba ñëpp dégg ne wax nga boo ko mënul nga mettit lu ko kon ñoom ci ñu ngi ils sont dans leur droit mais li tax loolu mooy li ma laa dañoo constaté que fléau bi mu ngi yokku borom ñaari tur yi de ñun ñëpp xam nañ ne dafa commencé di dugg di dugg bu dugg. mi ngi law mi ngi law dem rek mu mel ne benn vague buy dem kenn mënu ko arrêté waaw ah, y a pas lieu donc de se poser la question pour ne. lii nañ la def pour mu pour mu reculer parce que nag bu reculer wul ah fa mu nar a mujjee du baax de. ok yaa ngi CREI bi ba tey. waaw. Ah. waaw waaw léegi sa mbokk jàngalekat yi ñoom tam. grève rek xanaa du ñu wér ngànnaay itam. Euh, en réalité man service laa nekk donc nekkuma enseignant CREA mais au niveau de la fonction publique mais koñ ba ma dëkk yor naa fa benn classe troisième ndax bëggumaa fàtte damay bañ a fàtte waaw xëy di jàngale dafa bokk ci li ma bëgg daf ma neex. Mhm. te comme ko yoroon naa leen ba heure bi du question damaa nekk maire ma sàggane leen. ba léegi yéen yaa ngi koy def ak say ñaari cours la rek bariwul. Mhm. lundi huit heures dix heures di huit heures dix heures loolu balaa appel yi commencé ak nit ñi def nga cours bi ba dellu sa kër te xale yi dama leen ko digoon bi mu kiiwee xam nga xale xale yi ñuy foog ne xale lañ dañu dañu am xel ñoom ñoo ma ko laaj monsieur yow bientôt vous allez être euh, maire de Jaxaay Est-ce que man leen non que je sois maire je vais continuer les cours que je ne sois pas donc ma diggee nag bor la moo tax ma ma jàpp ne àdduna liggéey rek moo ci am solo. kon jàngalekat yi euh, li ñuy sàkku bari na 69 milliards la woon léegi ñu ngi ci ba 90 milliards tey. Mhm. xanaa ñu war a mën a bàyyi. waaw mais xam nga un droit c'est un droit xam nga aussi balaa mbir mi di di gën a neex. di gën a yemb ñu nangul jàngalekat yi li ñuy li ñuy kaas xam nga dañuy wax naan toujours jàngalekat yi xaalis rek xaalis rek xaalis rek mais Mbemba boo ko dundul doo ko xam man nañ ma wax ban liggéeykat fii Sénégal moo bëggul xaalis tout le monde tout le monde am l'argent et que li ñuy jiiñ da souvent les enseignants mi ngi ci koor yeneen yi presque koo gis léegi Sénégal mi ngi xarmat paraît-il que même non ministre laa sax j'ai <laughs> am possibilité dem dóori ay cours dans des universités ñu ngi koy def parce que adduna moom métti maanaam ni ni ni mu amee inflation des prix yu bëri yokk ci loyer carburant bi am am yokkewul noonu bëgg-bëgg yi dafa yokk bu dul dara di dara rek suñu portable yi lim ñuy jëlal bu njëkkoon portable amul mhm. te boo defee budget euh, mensuel d'une famille lu muy consommer ci portable mënoon na ko dundal kon yokk-yokk yi bëgg-bëgg yi dafa bari am yi yokku demewul noonu enseignants yi nag bokk ci ñi nga xam ne dans la fonction publique seen avancement dafa xaw a yeex ndax y a beaucoup d'avantages qu'ils n'ont pas parce ñoom dañuy sàkku rek ne ñee ñoo leen ëpp li nga xam moo ah, jëm ci xam nga indemnité xam nga xam nga xam nga kii audit bi ñu waxoon de la fonction publique bi le président Macky Sall ñaanoon mm-hmm. par rapport au, niveau de salaire gis nañ ko les enseignants font presque soixante dix à quatre vingt pour cent des fonctionnaires mm-hmm. hmm? alors que ñoom ñi ngi am seulement les les les vingt cinq pour cent ou trente pour cent du niveau de salaire. Mhm. soixante dix pour cent yëpp mi ngi dem ci les euh, vingt pour cent de fonctionnaires yi des kooku injustice la. pourquoi devant une réparer ah mais bu ñu ko réparé wul aussi lu mel ni moo fiy am rek réparation mun na am. Mhm. il faudra que man li may wax mooy. état bi seen niveau de seen train de vie. Mhm. seen caisse noire yii. gars yi bu fekkee dañu bëgg jaamu askan wi laa la wax de bu fekkee rek dañu yërëm Sénégal gars yi nañu bàyyi seen prestige yii. supprimer caisse noire yi. supprimer caisse noire yi toj xaalis bi séddale ko xam nit ñi xam nañ de. nit ñi xam nañ yoon bi yoon wi leer na da di rek problème bi mooy bakkan moo sonal borom bi te ku nekk bëgg nga jaay na yaay buur. Mhm. yor sab kees di gundaan daat mais am na nu doon doxalee. Mhm. mais mais ku nekk di nga ci gis sa bopp. te fii au Sénégal muy enseignants yi muy yëngu ci santé muy ñeneen ñi fii nit ñi dofuñu parce que l'information circule nit ñi ñoo bokkoon i classe nit ñi ñoo bokkoon i école nit ñi ñoo bokkoon ay parcours universitaire ay xamante nañ yenn privilège bu ko ñenn ñi amee te yow ëppaloo la benn parcours mais quand même c'est écœurant c'est une injustice sociale te mhm. injustice sociale yooyu attention de yëngal réew yàlla nañ ci yàlla musal donc répartition des bien ba mu am benn genre équité malgré que égalité mënul am fenn mais mu am benn équité sociale espérons que jeudi ñu am benn consensus gouvernement ak euh, jàngalekat yi mais rek ñoom bàyyiwuñu ba tey je reste je reste persuadé que dinañ dinañ dinañ arriver à un consensus lu tax nous sommes dans un pays bu nga xam ne le Sénégal depuis que Senghor nu mu ko waxee nous sommes dans un pays de dialogue fii Sénégal. Hmm. lu mu tar tar tar bu ñu toogee bu ñu waxtaanee dinañ juboo ñu tojante bopp ba pare dinañ juboo dinañ juboo tojante bopp sax man laa d'accordutul man bopp man naturellement dama koy wax parce que dañu naan même les plus grandes guerres sont terminées autour d'une table. Hmm. mais comme que comme que yéen grande guerre boobu ci table lay mujjee kon mënu leen fa njëkkee dañ fa war a njëkkee. moo tax état bi war di déglu. Hmm. ñi nga xam ne nii ñoo nekk ci front social. ay travailleur uh-huh. pour que yenn état di ko teel a gàttandu. teel a wax. engagement yi ñuy jël itam mu nekk des des engagements réels et réalisables loo xam ne nii du. du par parloo ko waaw dañ koy jël loo xam attan nañ ko. ñu de bu ñu ko jëlee ba d' accord ñu def ko. mais jël engagement defuloo ko quand même c' frustrant alors que à côté yaa ngi gis koo xam ne mu ngi mën a benn train de vie boo xam ne da lay gëmloo ne Sénégal dafa metti alors que moom méttiwul ci moom. ñuy xaar poste premier ministre bi élection législative bi di waaj a ñëw yeewi askan bi ndaxam vent ba mu yoroon ca local bi moom lay yoraat rek lu muy yomb fël ci kanam. waaw benn bokk yaakaar itam tooguñu. waaw xam nga le poste de premier ministre moom bon <laughs> il y va de de la volonté du chef de l'État ak consultation ya muy def. mais ñun ñi nga xam ne tey nu som des responsables de yeewi askan bi ñun xam nañ ne yeewi bi non état bi du ko bàyyee noonu état. du bàyyi yeewu bi ak boppam parce que aussi réew mooy doxee noonu. d'accord ñu tas yeewu lu ne lu ne lu ne lu ne dina ci am. moo tax may lancer un appel à travers les différents responsables de yeewu pour xamal leen ne bu fekkee ne message ba ñu lancé woon muy ñun dañu ñëw pour changer le système parce que fu 21 euh, euh, personnalité nationale signé benn charte. Mm-hmm. te ku ci nekk amoon dayo boo demee local ku ci nekk amoon dayo boo demee législative ba même. am dayoo nekk président. nga toog ci toog ci say responsable nekk ñu ay maire tey pour lan. pour benn idéal commun. idéal boobu muy ànd nawle pour changer le système au Sénégal et pourquoi même pas dans la sous loolu dafa war nekk dëgg. législative moo ko nar a prouver wala. moo koy prouver manaam commune. cohabitation commune non du waxuma cohabitation sax mais maanaam commune élection locale yi ñu jógee dafa prouver que ne euh, sénégalais yi maturité mi ngi fi am. il faut nag ñu confirmer ko ci élection législative yi. Mhm. cohabitation bi su boobaa day day mujj nekk. Mhm. mais dina créer pour que 2024 ñu mën a changer. le système radicalement. bien sûr gëm ko moo tax ñu nekk ci ay responsable mhm. di liggéey tey ba doon maire. parce que nag li ci des yëpp suffrage direct la de. waaw suffrage direct mooy fal. ay député suffrage direct mooy fal le président de la république. jeexale ko ak benn ponk bi stade bu Sénégal bu yees bi daan ko dalloo euh, ci li nga xam ne nag moo jëm ci talaata. Euh, xëy na opposition bi nga nekk di nga nekk rafet na. bien sûr waaw cest boo gisee lu baax neel gongo. ah lu baax la. non lu baax la. Mhm. xëy na mun nañ wax ci ku yeeg yooyu. Ah. yooyu moom bon man mënuma ci sori je suis pas un spécialiste financier mais ah. dañ lay wax ku nga tiit. waxu mun nañ ci wax mhm. mais am un stade digne de son nom waxuma la un sax on devait en avoir plusieurs parce que nag. coupe d'Afrique bii ñu jógee yàlla may ñu ci ndam. Mhm. ñuy sargal ñëpp ñu ci sonn de près ou de loin. di wax ne vive le Sénégal dañu waroon na. vraiment am ay stade yu ñu mën a may. si mhm. peu ñu organiser une coupe d'Afrique des nations. Mhm. donc stade bi c'est venu à son heure. le sport day boole du xàjjale. mais man itam fa may waxee. waaw du rek stade bi. mooy. stade Demba Diop depuis combien d'années le problème mun ñu ko régler réhabiliter ko. le stade de ngi fii donc nañu nañu les infrastructures. Demba Diop FIFA moo ñu war a jàppale fédération la war a jaar jàppale ñu stade Léopold Sédar Senghor liggéey euh, du yàgg dana tàmbale itam Léopold. mais gis nga Bemba. Hmm. état lu mu bëgg a accélérer accélérer ko lu mu bëgg a def parce que l' état est souverain. am na yoo xam ne. Hmm. am na yoo xam ne. Hmm. ñoom ñoo war a woo FIFA wax ak ñoom ndax euh, Senghor. le président Senghor bu mu fi soxlaa <laughs> euh, jël présidence. kaf mhm. mbir mi euh, Infantino dafa ñëw gis suñu président. donc les états mun nañu régler loolu. donc li fi existé. Mhm. Demba Diop amitié nañ ko réhabilité. am na les au niveau des région nañ leen réhabilité. Mhm. stade bii bu nga xam ne bu bees la nañ ko tijji. Mhm. Ah. yàlla may ñu fa ndam entretien yi waaw may ñu fa ndam ñu yóbbu. Mhm. Euh, coupe du monde coupe du monde Qatar deux mille vingt deux. mais surtout le suivi. Sénégal li ñu yàq mooy du ñu def suivi. nañ ko suivi ba la xew amitié wala feneen. bañ bañ fa am kontaan nañ amoon nañ mbégte lool dalal la tey Abdoul Aziz Diané fii ci émission euh, gox bi ci réew FM. vraiment di di la sant Mbemba. jërëjëf j'ai été très agréablement surpris parce que gis naa fi lu am solo. di kontaan rek et di leen gën a talal loxo. bu ngeen ñu soxlaa nu sommes là et nous parle parler parce que dañoo teg ci ay bopp gox goxaan. Mhm. moomuñu suñu bopp li ñu yor population bi moo ko moom. kon bu ñu soxlaa dañu war oyof. Mhm. de wuy ji wax pour askan wi xam fa ñu jëm ak ñoom. am na solo di remercier la la rédaction de de Rewmi. Mhm. Rewmi FM. Mhm. di la gërëm bu baax. jërëjëf à travers yow Fat Babo. sonn na ci trop waaw sonn na ci trop pour émission bi am ñu ngi koy gërëm au passage. di gërëm sa technicien bi. également à travers les ondes de Rewmi FM di gërëm toute la population de Jaxaay parcelle ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax. merci jox dig daje mbokk auditeurs yeeg auditrice yi dimanche incha allah beneen invité fii ci rajo Rewmi FM.